mbokk yi asalaamualeykum kii mooy xalifa ababacar sàll di maire bu dakar moom mi ñëpp doon xaar mu jug wax ci référendum bi nga xam ne ñu ngi koy waajal moom xalifa ababacar sàll ci teeyam bi ñu ko xamee ci yar gi ñu ko xamee ci dàll gi ñu ko xamee ci teggin gi ñu ko xamee ba mu waree wax jël na kàddu wax te moom xalifa bi xalifa bi nee na déet lay voté ci référendum bi ñu nar a amal ci weeru mars bi le 20 incha allah kon xalifa bi nee na non déet ci biir référendum xalifa bi neena na bi ñuy waajal te nar koo amal dimanche 20 waroon na nekk référendum bi nga xam ne doon na gën a suuxat gën dëgëral ci sunu démocratie wante mel na ni ci wàllu woowee de ñiy oote bii référendum lajj nañu ci xalifa bi nee na lajj nañu ndax bu ñu fàtte mukk ni référendum bi li ko waraloon mooy moom njiiti réew mi dafa diggee woon ni dana wàññi màndaam bi jëlee ko ci juróom-ñaari at indi ko ci juróomi at digge boobu nag mu digge te nga xam ne mujj na ko wàcc day naxasal bépp kàddu boo xam ne kilifa dina ko yëkkati ci biim réew te moom xalifa bi di fàttali ba tey ni ñàkk kóolu ak warmaal askan wi moo waral mu bañ a sàmm ak li nga xam ne moom mooy kàddoom moom xalifa bi ba tey di fàttali ni mbubboo gi président mbubboo xalaat bi ko conseil constitutionnel jox day gën a firndeel gën a wane xeeb gi nga xam ni moom président xeeb na ko askan wi ñàkk warmaal bi nga xam ni moom président ñàkk na ko warmaal askan wi ba laaj bi nga xam ni askan wi ñoo ci gënoon yeyoo pour tontu ko nee na mu jël ko yóbbu ko conseil constitutionnel te moo ni de askan wi ñoom rekk ñoo am sañ-sañu dogal ci lii nga xam ni moom mooy àtte seen dund ni chaque jour kon day gën a firnde lii nga xam nag ni président nëbbatu na ko jaar ca conseil constitutionnel ngir xañ askan wi kàddu bi nga xam ni ñoom rek ñoo ko am ngir jël dogal ci lépp loo xam ne dafay tëdd ci chartu ndeyu réew mi su weesoo ñàkk kóolute gi nga xam ne ñàkk na ko kóolute askan bi ba joxu leen ñoom seen bopp ñu àtte ndax dañuy wàññi màndaa bi duñu ko wàññi seetlu nañu tamit ni waxtaan diisoo sottente xalaat bi waroon na am lu jiitu ñuy laal sartu ndeyu réew mi amu ci te lu mel noonu xalifa bi nee na li muy jur mooy naxasal sunu dëkkin ak sunu nekkin ba tax na tey lépp lu mu jër mooy lan féewoo xiiroo ŋaayoo ak ñoo xam ne dem nañu sax ba tiitaange rekk la ñu dëkkee ba ñu waxee référendum bi ba keroog ñuy àgg ci référendum bi xalifa bi nee na yooyu yëpp boo ko dajalee nga jële ko ci dige bi mu digee woon te wàcce woog moom ñàkk wormaal askan bi ba jox leen ñoom seen bopp ñu àtte ndax dañuy wàññi màndaa bi duñu ko wàññi waxtaan beeg gisee bi nga xam ne moom moom moo waroon jiitu lépp lu jëm ci sàttu ndeyu réew mi te amu ci lii nga xam ne gis nañu ko seddu nañu ko tey te muy xiiroo ŋaayoo féewaloo ak tiitaande gi nga xam ni coowu référendum bi jur na ko te moom ci boppam mu jàpp ni yooyu yëpp du dëgëral sunu démocratie yooyu yëpp day naxasal sunu démocratie loolu moo tax xalifa Ababacar Sall ci boppam bind bataaxal bi ne moom kat non déedéet lay daal di voté ci référendum bi nga xam ne ñu ngi ciy dem incha allah le 20 mars 2016. dégg ngeen ko mbokk yi xalifa bi nee na déedéet ñun tamit nee nañu déedéet. yeneen doomu Sénégal yi nañu déedéet ci référendum bi ñuy dem wante président mi woote référendum bi mu ngi ñuy fàttali nee na keroog ba muy dajeeg waa benn Bokk Yaakaar nee na déedéet de du loo xame ni sénégalais yi baaxoon nañu ko mu ngi koy wax ci nasaraan nee na le non n'a jamais prospéré au Sénégal mën a cey eskey déggal ma sunu président ndax du ci Sénégal bi la Cheikh Oumar Foutiyou di wax déet ba keroog ba muy dugg ci les falaises de Bandiagara keroog lañ ko gëj a gis wante xanaa du Sénégal bi la Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke wax déedéet tubaab yi ba ñooñu ñëw ne ko kaay nga dem foofa ca Gabon ba tey ñu koy màggal waa xanaa du bi foofa ca la moom Cheikh Ahmadou Bamba ba tey wax tubaab bi ne ko déedéet kii la sàkk sàkk ma moo sàkk ndar waaye doo boroom ndar wante xanaatu ci senegaal bi la Maba Jaxu Ba ne déedéet ci Sénégal bi la Lat Joor Ngoone Latir Njaay ne déedéet xanaa ci senegaal bi la maam Maodo Malick ne déedéet xanaa ci senegaal bi la maam Limaamu Laay ne déedéet xanaa ci Sénégal bi la Baay Ñas ne déedéet xanaa ci senegaal bi la Bukkunta ne déedéet xanaa ci senegaal bi la jàngu gi ak yaa seen cardinal ne déedéet waaye déedéet dafa mës a jub Sénégal déedéet mës ñoo jig kon bu tey président taxawee ne déedéet du baaxu Sénégal kon président mii kat saaga nañu xas nañu wante nag président dafa war a xam ni kenn du ñu jam naa ni kon keroog le 20 mars war nañ ko mën a fàttali ni déedéet kay baaxu Sénégal la incha allahu rabbi